ma leeral nag gannaaw déclaration boobu gis naa sëriñ bi mu wax ma ni ma teralu ma la de ni la bul politique waaye man parti politique laa laa gëm ni du sa jëmukaay yow danga yow senegal moo war doon sa parti peuple sénégalais moo war doon sa parti kon waruloo am parti loolu mooy li ma sëriñ bi wax ma ni ko danaa ko jëfee dama dama kenn woon mu may ma rek ma waxtaan ak ñi ma àndal ndax kër doo toxu yow boroom kër gi nga génn bàyyi ña nga àndal yëpp sa biir kër ga déedéet da ngay fexe ñoo ànd ak ñenn ñi ñu ànd ak yow toxu fa nga jëm ñeneen ñi sunoo dem feneen nga fexe ñu àgg fa nu jëm looloo tax ma waxtaan ak ñoom nee naa ñi ma àndal tey ku si bëgg wéy si parti politique mën nga tànn mën nga tànn si leader yi ma àndaloon wala mën nga tànn man ngeen tànn dajale def seen mouvement politique ak waa dakaar ak ñi nekk ci Madické 2019 ci Sénégal yépp loolu wax naa leen ko waaye jàpp leen ni du parti ma Madické ndax ma ma dikke amatul parti ma Madické xalaatatul def parti ma Madické day jëfe ndigal man dama war seet lan la sëriñ bi bëgg ma jiitu ko si waaye su demee ba sëñ bi di ma bëggal dara la ma bëggal mooy li gën si man sama àddina ak alaaxira sëñ bi li ma bëggal moo gën si man àddina ak alaaxira rawatina gannaaw ba ma ko bëggalee dama ñëw sama sëriñ dëggal loolu kon wax dëgg yàlla mu ma dikk jëfe rek jëfe ndigal rek moom mooy sama taar feneen fu ma gis fu dul jëfe ndigal booba yàq naa loo xam ni kenn du ko mën defar si àddina alhamdulilah bi sama xol bii jëfe ndigal rek a si nekk lii moom laay wax sénégalais yi